ñu nekk ci loolu nekk ci loolu ba yàlla dogal buur bi jëm ci dajale téer yi pour def ko benn tudd na ca tawraat tudd na ca injil tudd na ci furqaan waaw ndax dafay hiérarchiser waaw dafay hiérarchiser officiellement loolu tax ba mu nee tawraat ni injil waxul quraan furqaan la wax waaw lu mat a xàmme su ko defee nag yonent bi di naw Muusaa rekk di naw Isaa rekk ak di naw boppam waaw loolu la yàlla dogal lu mat a bàyyi xel la mu mel ni kon man mii ku sëpp Moussa yàlla xam na ko waaw kuy faral di jàng mbiram laa te dama bare ay wëllëre yoo xam ni taalibeem lañu waaw euh, bu ma amee des ennuis avec les musulmans, je suis obligé d'aller prendre contact avec euh, les gens de de ndax am lu ma yëg ci ñoom te li tax ñu tudde ko kalimullah interlocuteur par excellence yàlla ko ko tuddee yàlla ko ko tuddee ku am solo la